di toog ci jataay bii nga xam ne dañ ciy santaat borom bi subhaanahu wa taala waaye di ci feddliwaat sunu laxasaay ci sunu jaayante ak Cheikhuna Ahmadul Xadim e, ci jataay bu am solo boo xam ne da ngeen ko miin di ànd ak ñun saayu bis bu tedd bii dëgg malee di ñetti fani tamxarit mu di bisub Cheikh Abdoul Xadir Mbacké ñu toogaat fii ci e, daare ji nga xam ne e, taalibeem bii di doomam di Cheikh Mouhamadul ibnu cheikh abdul xaadir dana koy faral di amal at mu jot di ko baaxe lenn ci taalibe yi waaye di ko baaxe jullit yi e, di ko tegit nag ci fàttali njàngaleem cheikhul xadim e, loo xamante ni bii danañ ko mën a jariñoo te lépp luñ la jàngal ci Serigne Touba walla ñu fàttali ko ci bu doon benn keppit boo ko ci royee da ko rawee sag maas gépp loolu nag di liggéey bu am solo boo xam ne ñu ngi ciy sant yàlla bu baax waaye di ci ñaanal Cheikh Mouhamadul Moustapha yal na ko yàlla may fan gudd lool waa ànd ko wér waaye gunge ko ak kattanu yaram ak kattanu xel e, te lépp lu mu weesu sëñ Tuubaa gërëm ko e, ci teg mu teg tànkam ci siraatal mustaqim waaye nag di dundu sëriñ Tuubaa ju leer yoo xamante ni bii da koy dund ci xol waaye di ko dund itam ci yëg-yëg waaye di ko dund ci pas-pas lépp lu mu wax wala mu yëkkati ko rek ci e, dundal. Eh, li fi sëriñ Tuubaa bàyyi woon la waaye ak sàmm ndonal mag ñi loolu moo tax tey jii ñu toogaat fas yéene àndaat ak moom jataay bi ngir waajal bis bu tedd bi nga xam ne moo di bisu màggalu Sëriñ Abdul Xaadir waaye lépp luñ ci jànge rek ñu xam ne lum ñu wax rek eh, jikko jooju dañ koy daal di gisaat ci Cheikh Abdul Xaadir Mbàkke te boo ko gisee ci Cheikh Abdul Xaadir rek moom ngay gis ci mboolem doomi Serigne Touba yëpp te loolu lim lay firndeel rek matuk Serigne Touba gi nga xam ne sunu borom matal na ko ko kon ñu ànd déglu Serigne Moustapha. di leen nuyu it ci turu sëñ Cheikh Mbàkke mi nga xam ne mooy kilifa kër sëñ Abdou Khadre Mbacké di jiital ci suñu nuyoo ci aw turam Cheikh Mouhamadul Muntaxa ayyadahu llahu wa nasarahu wa atamma jamiha mashaarihi bi jaahi jaddihil karim di di ko siyaare bu baax di ko joxit siyaare njabootu sëñ Abdou Khadre gépp di leen amal jataay bi nga xam ne baaxoo nañ ko def ni ko fàllu gar si la waxe mu ànd ak Mor Talla ñu ñëw ci jataay bi ñu ngi leen di nuyu ñoom ñëpp di leen di nuyu mboole mbokk julli yi ñuy seetaan yëpp di waxtaan jataay bi nag luñ ciy wax rek ci turu siñ Seex lañ koy wax di leen siyaare yéen ñëpp di leen dalal ci bis bi nga xam ne moom lañuy waajal muy noonu ko Fallu waxe bis bi ñuy waajal defal Cheikh Abdoul Khadir Mbacké Cheikh Abdoul Khadir Mbacke di kenn ci doomi Serigne Touba yi Serigne Touba nag mooy ki mat sëkk ba kenn ku ci ne def na ci yow lool buñ tolloo di waxtaan ci yow danga naan kii amul moroom waaw fekk Serigne bi mel noonu te la ka wax ne amul morom it wax na dëgg. ndax moom ay mbubbam rek lay yëkkati di leen ci sol ci di leen ko solal ba noppi nag di sëñ bi moom ci boppam bu ko defee nag naaru ganaar ba waxoon na ko koo xam ne sëriñ tubaa mooy euh, sa waajur koo xam ne sëriñ Tuubaa mooy sa waajur da nga doon ku neex a jariñoo te da doon ku set danga doon waman yakun cheikhul xadimu aban lahu tariqu xawaadihi wa yanduf wa yashrufi naaru ganaar ba nee noon ku sëriñ bi di sa waajur danga doon koo xam ne boo dee bool say pegg dana sew ndax danga neex a jariñoo ba ku bëgg a naan mën a naan ku bëgg lekk mën a lekk danga set wicc danga tedd waaw kon naar bu wax na dëgg sëñ Mourou Bousso mi nga xam ne it mooy waykatu sëriñ bi bi muy marsiyaal sëñ bi wax nag ci njëlbeen gi ñi ko njëkk marsiyaal la bokk sëñ Mbàkke sa sant ko ko dane woon fahumu kan nujoomi man talxa minhum xiltahu kaana sayidal axyaari nee na njabootu sëñ bi ñoo ki biddéewam koo ci dajeel da naan kii mooy sangub tànnee fi kon noonu la seen mel noonu la seen mbir mel waaye loolu lépp borom loxo bu sew bee ko liggéey daanaka wax <laughs> lu ngeen gis ci borom bi di ko yéem rek borom loxo bu sew bee ko liggéey <laughs> kon nag yàlla na nu yàlla taas ci barkeem kon nag kenn ki eh, waxtaane ci moom moo tax ñu bëgg waxtaan ci eh, lislaam bëgg waxtaan ci ay jikko ngeen xam ne noonu ko fël waxe lu ci doon Sëñ Abdu Xaadir loolu tabbiixoon na ko mm-hmm. lislaam ni murit war a doxe ci ay teggin la fa séene tënk tënk bu gàtt boo ko defee ngeen xam ne lislaam moom dafa réel lool boo gisee laaya wi saxaaba yi buñ masaa eh, saar wi saxaaba yi buñ masaa daje bala ñoo tàggoo faw ñu jàng ko bismillahi rahmaani rahim asri inna al la fi xosr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 was ñetti was yooyu ci la def lépp yoon wi woo nit ñi ci ñu gëm yàlla woo nit ñi ci ñuy jëf lu baax woo nit ñi ci ñuy laabiire di dénkante dëgg ak muñ waaw bu ko defee ngeen xam ne Sëriñ Tuubaa ñetti was yooyu ci la togg ñam bi ba mu génne liimaan ak lislaam ak linsaan mu ne sëñ Saliou mas na ko tontu ab ab bu fi ñëwoon ci jamono yi ñuy euh, ubbi école yi yi ñuy tëj école yi ci dëkk bi ne mu di ko laaj ne ko luy lu luy soufisme soufisme gi sëñ Tuubaa indi moom mooy lan mu ne ko ah soufisme dama ko xam man tasawufu laa xam sëñ sëñ <laughs> ma ne soufisme gi dama ko xam man tasawufu laa xam mu ne ko luy tasawuf gi sëñ bi indi mu ne ko ah ni ma la ko doon mën a leerale day wasu ñetti cin la li sëñ bi boo xam ne benn was wa liimaan la benn ba di lislaam benn ba di linsaan boo ko toggee nag aw ñama ci ñori woo xam ne adduna jo danga jegal àdduna danga nga liggéeyal alaaxira ba mel ne suba la liggéeyal àdduna ba mel ne dootoo fi jëkk mooy ñore ci ñam wa <laughs> bi tubaab bi waxtaan ak moom ba de ba dellu nee na ba ba ba tisbaar jot ñu yóbbu ko nag di ko jox ay teraanga nee na bu noppee mu ne ma ah yow de la nga ma waxoon daana gis naa ko seen dëkk ndax bi ma demee ci salon bi fi ngeen ma dalal teraanga yi ma fa gis ak salon yi ma fa gis eh, yañ am ci réew tubaab yi weesuut loolu. Mm-hmm. te te jumaa bi ñu waxtaan ba noot di jot dem ngeen ci gis naa muske bi ngeen tabaxal yàlla kon li ngeen wax ne bàyyi ngeen xel ñaar yooyu. <laughs> <laughs> kon nag sëñ Tuubaa ci loolu la nekkoon alxuraan nag dafa leeral lépp ndax boo gisee mu wax ne soññ naa leen ci gëm gëm mooy lépp ndax euh, jullit ñi moom biñ biñ ñëwee moo tax sëñ Tuubaa téere téeram yëpp mu soññ ci liimaan ndax amana rasul bi ma unsila ilayhi mi rabbi wal muminuuna kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi laa nufarriqu bayna ahadin min rusulihi ñun julli ñu foofu lañ ne gëm nañ yàlla gëm malaaka yi gëm téere yi gëm yonent yi yëpp te tàqali woon ci kenn loolu nag lañu sëñ bi doon soññ muy liimaan ji saalihaat yi moom yàlla sëñ bi ñëw soññ ji saalihaat yi mooy jëf yu baax yi fu nekk gis nga ko sëñ Tuubaa ci taalibe yi ñu góorgóorlu ci ndax as saali as saalihaat mooy lépp lu ab jullit di jëf maa tuslihu bi xayaatuhu maadiyan wa rooxiyan wa xuluqiyan wa xaqliyan wa jasadiyan wa maa yuslihu bihi fardan wa maa tuslihu bihi l usratu euh, euh, lépp loo xam ne mën naa defar lépp loo xam ne mën naa defar sa jëmm mën naa defar sa ruu mën a defar say jikko mën a defar sam xel mën a dese saw yaram ak loo xam ne kenn nit mën na caa defar loo ak loo xam ne ak njaboot mën na caa defarloo lépp loolu xamalu saalix lañ koy tudde ci lislaam saalix dana saalixaat dana nekk ci dana nekk léeg-léeg ak jaamu yàlla yii rek fa saalihaatu xat takuunu xibaadaat yutaqarrabu biha ilallaahi léeg-léeg mu nekk loo ne mooy jaamu yàlla yi ngay defar ngir bëgg a jege yàlla waaye léeg-léeg mën naa nekk silatul arham jokku bokk ak ak rafetal ikraamul jiiraan teral say dëkkandoo wa mawaddatul aytaam ak ak e, bëgg ay jirim di leen toppatoo wal insaan ilal ak di defal lu baax miskin yi wa am naa ay sabil ak defal lu baax doxandéem yi loolu lépp lislaam daa woote jim ci loolu lool it moom lañu sëñ bi doon soññ ci xamalu saalix ji nga xam ne moom la bëgg taalibe bi yëpp maase ci xamalu saalix mun liimaan munta am mukk te xamalu saalix amut ànd ak moom gis nga Firawna sax boo demee ci alxuraan ci sortu xaafiri waxaala rajulun muminun min aali firawna yakkatumu imaanahu ba mu ka àndoon ak Firawna si yàlla fi ne fu mag ñi dañ daa wax ñi dégg tasawuf dañ daa wax naan fu ne lu taxaw lu ne te am doole yàlla dana fa def ab jullit bu gëm yàlla donte da koy nëbbu ngir mu nekk di sowee jullit ñi mm-hmm. bu leen bëgg gis nga ba gis nga uh, kooke newoon ci Firawna bi ñu demee bay waxtaan ne dañoo bëgg a lor Moussa mu ne a ah, bu fekkee li muy wax dëgg la Euh, bu fekkee li muy wax dëgg la dana leen jariñ bu fekkee li muy wax amut moom lay war ci loosam lay doon waxaala moomi waxaala rajulun muminun min aali firawna yakkatumu imaanahu mm-hmm. ataqatuluuna rajulan nay yaquula rabbi yallaahu mm-hmm. waxat jaakum bil bayinaati min rabbikum mm-hmm. way yeeku kaathiban fa alayhi kasibu way yeeku saadixan yusibkum baadu lasi yaidukum bu fekkee li muy wax dëgg la lim leen di deel da ngeen ci gis dara bu fekkee li muy wax amut ci ndoddam la koy dal gi kon jëru rey waaye kookee gis nga ba mu demee da doon nëbbu ngëm nga waaye ba mu demee ba ba gëm nga ñëpp mu xam ne léegi weeroon na gëm gi gis nga daa woo nit ñi jëm leen jëm leen def lu baax waxaale si amana yaa xaw mi tabihooni ahdikum sabila rasaadi yaa xaw mi namaasil xayaat dunya mataax wa inal laaxirat hiya daarul xaraar <laughs> kon nag alxuraan eh, man xam ne saalihan falaa ji saa ila misla wa man xamila sayyi'atan falaa yajzaa illaa mislahaa waaye wa man xamila saalihan min zakarin aw unsaa wa huwa mu'minun fa'ulaaika yadxuluuna al-jannata waaw kon nag yal na nu yàlla dimbali gis nga ni mu waate waate ne ku def lu bon loola rek lañ lay delloo ndax ni ko sëñ Abdoulaye daa yàlla daa amul fu mu ko denc waaye ku def lu baax benn boo def mu fay la fukk moo tax sëñ Abdoulaye daana wax naan bu may liggéeyal sëñ Tuubaa kenn di ma wax dañ lay naxit man euh, dama koy wax nag samay fukk fukk lay yokk kay waaye naxuñu ma <laughs> wax ki kooku mi ngi may yokkali fukk fukk <laughs> wa man ahsanu qawlan man daa ilallah gis nga lu yàlla lu ne rek yàlla dana ci lëkkale jëf lu baax hmm. wa man ahsanu qawlan mimman daa ilallahi wa amila saalihan hmm. kon yàlla na nu yàlla dimbale ana ku gën a rafeti wax koo xam ne yaa ngi woote jëm ci yàlla tey def lu baax amut fenn fu yàlla waxe kuy woote rek te ënt jëf mm-hmm. moo tax sëñ Tuubaa soññ nit ñi ci jëf yoonu murit loo tax ñu tabax ko ci jëf mm-hmm. ndax sëñ eh, eh, ndax lislaam dafa doon loo xam ne wa tilkal ayyaamu nu daawiluha bayna naasi mm-hmm. gis nga lislaam lu yàgg-yàgg du sax ci fenn eh, adduna kon adduna laay wax du sax fenn nit ñi dañ koy ay ayaloo rek te boo nanguwut lii ñu bëgg a def ba tey eh, gis ngeen ko ci mbirum sëñ Tuubaa lu ko nit gàntul rek nit dana ñëw nangul ko wenta tawallaw yastabdil xaw xayrakum su ma laay koon amsaarakum waaye li bëgg faaw yàlla def ko daanaka wax sama mbuum fitna yàlla su mel ko yàlla na nu yàlla dimbale <laughs> wala eh, gis nga yàlla fi ni moom lu adduna jaxasoo jaxasoo moo téye yi walaw laa difaahullaahi naasa baadahum bi baadin la xudimat sawaamihu biyahun wa salawaatun wa masaajidu yudkaru fiihaa smullaahi kathiira wala yansurallaahu man yansuruhu waaw yàlla mooy téye bu téyewutoon nee na yëf yi jaaxasoo na bañ màbb jàkka jaamu ko fi ko doon jaamu yëpp waaye yàlla mooy téye tax ni ko alxuraan waxee rek wa tilka ayyaamu nudaawiluhaa bayna naasi yàlla moom bis yi di ko séddale mu dara saxut moom la yonent bi di firndeel ci addis bi may bëgg a wax moo tax am na feneen fa foo boo jub suratul fatxi foo ko yàlla waxee wa in tatawallaw yastabdil xawman xayrakum summa laa yakunu amsaalakum bu ngeen bañee li ñu leen di wax yàlla dana indi ñeneen ñu def ko niñ ko bëggee moo tax euh, sëriñ bi it noonu la mbiram demee lu mu bëgg lu ne ku ko ko ku ko ku ko defal rek am nga tawféex ndax ku ko defalut it yàlla indil ko ku ko defal ah, suñ saari daana wax loolu lu bari moo tax laayal eh, addis bi mooy li yonent bi wax moo tax yàlla téye gim téye jamono moo tax dara du yàq walaw laa difaahu llaahi naasa bi baadin la hudimat sawaamihum wa biyahun wa salawaatun wa masaajidu yudkaru fi hasmullahi kathira waaye wala yansuran allahu man yansuruhu inna allaha la xawiyyun aziz bu yàlla téyewutoon nit ñi lépp jaxaso waaye euh, lu mu la may may doole dana la am fu mu la téye boo xam ne am na foo xam su ñëw fa àgg moo addis boobu nga xam ne nag àdduna day euh, day wëndeelu rek moom la addis bii di firndeel yonent bi ne woon laa yalbasul jawru baadi illaa xalilan xataa yatla fa kullu ma tala fa kullama talaxa min al jawri sayun dahaba min al adli misluhu xataa du fil jawri man la mi xayrahu suma yaati llaahu tabaraka wa taala bil adli fa kullama jaa min al adli sayun dahaba min al jawri misluhu xataa yawladu fil adli man laa yaarifu xayrahu rawahul imaamu ahmad yonent alayhi salaatu wasalaam dafa wax ne maandu gii am bu ma fi jógee tuuti ak jeng dana am jeng gu ñëw lu lu lu euh, lu toll ne ci ma lu toll ne moom ci maandu day daal dem ba mujj ñi judd ci jamono ja dañuy yaakaar ne ak jéng rek amoon buñ doxaatee tuuti tabaaraka wa taala indiwaatug maandu mooy ñëw di dindi ndànk jéng ga ndax lu lu lu toll noonu ci maandu bu ñëwee rek lu tol noonu ci jéng génnaat ba mujj mu daj ba ñi ñi judd ci jamono ji dañuy yaakaar ne ak maandu rek moo ko am. kon nag noonu la àddunay doxe moo tax yonent bi alxuraan bi mu koy wa waajalit bi mu koy wooteelit lu ne cim xel ak sàmmonteeg mashaa'iri nit ñi moom la ko yonent bi doon defee ndax qul laa tusaluuna xammaa ajram naa wala nusalu xammaa taxmaluuna yéefari bi yàlla waxe ñoom da leen ne duñ leen laaj liñ tooñ ñun duñ leen laaj it di duñ leen laaj yéen li ngeen doon jëf ma gis nga lu mel ni tooñ ñun la ko askane ngir bëgg a mën a wax ak ñoom waaw loolu mooy mooy al mawhisatul hasanatu gi alxuraan doon jàngale waaw loolu gis nga loolu la ko noonu la ko yàlla ja wa inna awiyaakum la ala aw fi dalalin mubinin ñun wala yéen ñi ngi ci jub wala ñu nekk ci réer xam na ne ñoo nekk ci réer waaye bëgg ki ngay waxal mën a dégg li ngay wax mm-hmm. moo tax mu wàcce boppam ba wax ne yéen wala ñun am nañ ñu ci ne ci jub wala ñu ci réer kon nag loolu mooy royukaay bi kon nag nañ safet njort te xam ne lu mboolem lu sëriñ bi doon dë dële dañ ci teg suñ bët ndax yàlla may na ko mu mu jëfal yàlla loo xam ne lum ñu mës a lu ne teg nañ ci suñ bët mboolem lu mës a ci dëkk bi tab ca booba Euh, mu sanc fii nit ñi di jóge Mbàkke di ko fekk si mu defar dëkk ñu defaral ko kër dëkk ba ca waxtu waaye nit ñi dañ ko yéem ndax per per yi ñu fi def ak néeg yi ñu fi def mag ngi dañ ko doon yéem bu ñëwee mu ne leen mu ci kanam sax di ay sàkketi sàkketi eh, sàkket yi sàkket yi ñu weex tàll laa koy def boo nit ñi génnee dañ naan ah kii nag da dëgg dëgg nag dëgg dëgg nag lii mu am ñu di ko yéem mu naan ay sàkketi weñ <laughs> Euh, sakkat kat boo sakkat kat kenn du ko mun am waaye mujj na mujj na dëkk bépp mu defal la ko sakketi wañ tane fi lu ñu mës a daal lu nekk noonu la mel te ba mu ko soxlaa ba mu ba mu daa jékki-jékki rek nañ mu wutal sakketi wañ ñu daal yi dem ndar fekk boobu tàmbalee ñëw ci réew mi bañ demee ndar rek ñu fekk ba ñu ne a ah, man de daa mel ni yéen di ngeen di laajte mën naa am ndax ab bateau ngi fi boo xam ne ay ay weñ seng la def <laughs> ah lu mu bëgg rek lu mu bëgg rek kon nag léegi moom sëriñ boobu nañ dikk ci ay ndénkaanem waxaale sëñ bi dafa dafa ñoo digal ñun taari bi ne waxaale til moomina bi taxaawuni amaa xalal asaa falaa taxaawuni yéen taalib yi yëpp maa ngi leen digal ak julit yëpp na ngeen di jaxasoo na ngeen di jaxasoo yéen taalib yi maa ngi leen digal ngeen di jaxasoo ko jullit ci di ci di ci dimbalanteeg moom waaye bu dee lor bu leen dimbaleen teg moom al ism wal udwaan daal bu leen jàppale kenn wala tuxaalit saahibal xisyaani tawxan wala tamit li li li li tooxiyaani bul bu leen jaxasoog kuy moy ci seen coobare bu jengit jëm ci ku bew koo xam dafa dafa mbew teem wal taxulil xayra waxan siwaahu usmut yasir ridaahu maa taxwaahu moo ne na ngay wax lu baax te noppi ci lu dul lu baax dana mujj kon ngërëmul yàlla rek mooy doon sa bëgg-bëgg <laughs> waaye suma kullimta bil fudooli famil ilal afdali lal mafdooli saa bu ñu la waxee ay caaxaan na nga jeng yow jëm ci la gën rek bul waxe waxe caaxaan yow mooy fodool mooy ay larax larax la ko wolof yi daa wax wala tuhin laa tantahir wala tasub wala tuxawif musliman wa minhu bul doye julit bul gëddub julit bul ŋàññib julit bul ragalloo ab julit foo foo toll del tuubal yàlla loolu la ñu sëñ bi digal maa lam yakun li ajli xaqin amaa la hoo falaa yoraa saaman yi ndare bokk ki ngay mm, dëddoo ko def lu kii àqi sariha tax nga di ko def loolu bëgg mu jàjju jëm ci yàlla mu ne it wala wala waltansaroo soxbata kulli faasiqi issaaka bil muridi xayru laayiqi na ngeen wattandi ànd ab saay-saay ndax loolu yellut ci am murid delluñu ñu soññ it ne wa talabul xalaali fardun yantami li kulli muslimin bi xayri wami jullit bu ne nay sàkk lu lew ni julli doone farata la ni do julli doone farata ni la sàkk lu lew doone farata laa yanfaul ilmu wala al ibada bil akali lil xaraami inda saada xam-xam ak jaamu yàlla doo jëriñ dara bu fekkee da ngay lekk lu araam mu dellu ñu waxaat ne waxaalifoo nufoosakum fi ma daat lahoo ma tihaamiha fi ma daat na ngeen di wuteeg seen bakkan bi ci lum leen woolu ne te te di ko tuumaal ci la muy woote ne moom la ci jublu lu la ci bakkan wax ne la moom laa ci jublu rek ne yii damaa bëgg a yàqal noonu ko borom mu ne la fii neex na rek woccal rek hmm. boo ci boyal ndax ndax ndax lay waar rek baaxut ci wa wa nafsu kat tifli in tuhmilhu shabba ala hubbi radaahi wa in taftimhu yanfati dégg nga mu ne wa xaalifa nafsa sabahan wa masa takun gadan min al muqaddasa mu ne na ngay na ngay waxaasi bi nafsa wa masa nee de sa bakkan bi de ko isaab boo xëyee ba ngoon jot del sama bakkan bi lu mu yendoo tey de ko xalaat ndax amal na ma njariñ am amalu ma njëriñ nee ko nee na boo ko dee defee noonu ba du set kon lor yàlla dana la ci sellal ba nga mucc ma ma ma ma dikki ci nag ci li mu ñu indi ci ay teggin ndax murit mag ñi dañ daa xam ne murit koo digg ñu ne am na eh, eh, jébbalu na te amuti teggin rek jébbaluwut teggin murit te teggee ko lal waaw ci wax ak ci jëf <coughs> mu ne yaa ayyuhal muriidu laasimil adab fa innahu yakfil balaa wal wadab yow taalibi bi maa ngi lay digal nga taxoog teggin ndax dana la jañal balaa dana la jañal ñaawug mbir wada bu sëñ mat jaw paxamas ne ko la bëgg a laaj sëñ bi ne ko wada bu dama ko gis ci kii sëñ bi ne ko dama yër ci xaamuus mu daal ñëw ne ko gis yër naa ko ci ne ko lu ne ko soo ul xaali ñaaw mbir mu ne ko li tax waxuma la ko boo sama làmmiñ dafa taqoog kun fa yëkkun bu ma la ko waxoon da nga taqoog loolu la ilaha illallah <laughs> day na mu ne wa minhu bokk na ci teggin rahmatu saxiiri bi ihtiraam man kaana fawqa ka fasaa nax jul maraam mu ne bokk na ci teggin yërëm ndaw ak wormaal ko la mag nee na loolu daal mooy ngiirum càkkutéef mi nga xam ne ku ci jaar da nga am li nga bëgg mu ne ba tey na nga def saga na nga na nga def ki nga xam ne da yemoo moom na ko def ni sa bopp sa bopp yéene ko li nga yéene sa bopp ab daal balaa rafetuk njulit mooy kenn ku koy yéene li nga yéene sa bopp waaye képp koo xam ne sii yaa ngi yéene nit ndax lu yàgg-yàgg kenn ku ne la ko yéene rek bootu mooy delsi kon nag deel di yéene lu rafet kila la la gën a yéene lu baax daal moo la gañe waaw moo tax la rek yow yéene lu bon donte xam nga ne ke yéenewul lu baax it yow yow yéene lu baax rek <laughs> loolu la ñu sëñ Tuubaa digal te moom la daa waxit ci tomb yi hmm. wa minhu idmaanu nasihati liman raaytuhu min al baraya fi saman nee na na ngay laabiir ab jullit daa war a laabiir lépp loo xam ne xam naa ne njariñul moromu jullitam mu di ko mu di ko eh, yéene ak di ko wax faltan wi taw tawbatan li sil xisiyaani li wa ci man naha hani toxuyaani mu ne bokk na ci baax boo gisee ku jàdd yoon sax da koy yéene ci sa xol ak di ko ñaan naan yàlla na ko yàlla tegaat ci yoon wa mm-hmm. waaye doo ko reetaan ak di ko weer lool ci loolu loolu la ñu allahu fi daareeni bi fadlihi subhaanahu nooreeni bi anna xayra ma bihis daanal fata talaasumul adabi xaythuma ataa li bihi ila arrahmaani yasilu abdun wa ila aljinaani fa kullu man bi gayrihi raamal wusul li xadrati llahi fa xumrun laa nabil wa bi annahu kaada yakunu sulusiya diini fa fadluhu mubin mu na xam ne sun boroom lépp loo xam ne si eh, sun boroom ci ngëneelam lépp loo xam ne waaye nga koy waaje amul lu ci gën a kawe ay teggin ndax ci ay teggin ci la woo nit di mën a àggee ci yàlla ci lay mën a àggee ci àjjana képp koo xam ne yaa ngi sàkku àgg ci pay bi yàlla ba te andoo andoo ki teggin na wóor ne ci jël ab jël nga am mm-hmm. sëñ bi daana wax ne balxaam ci ci waxe eh, xekkam yi mu daa daa ne balxaam di eh, niiwi teggin rek moo tax mu aggut aggut ci pay ba ne àggoon na ci bu defee nii jàkkaarloog la xul ma foos fukki junni ak ñaar sëñ Duxaat daanañ ko nettali fukki junni ñaar ci eh, ay ustaas ñoo daa gàddan gàggantiku ci moom waaye niiwi teggin teggin waaw sëñ Tuubaa nag moo digg sëñ Tuubaa nee na nee na sëñ bi nee na waaw balxam yàlla da ko may rek mu mu daal téen ci kaw te xamul ne pakk ci suuf la ne pakk yi daal koy fil mu daanu yaa <laughs> fakk yaa ngi suuf kon nag na ngeen xam ne nag teggin yëpp ci yile wa jumlatul aadaabi hindal xaw mi inxasaran fii xamsatin yaa xaw mi xifsun li xormatin xuluwu himmati wa xusnu xidmatin wa sugru nicmati xaamisuha nufoodu lil asima fa man yuraahiha yan yanal ganima nee na teggi nag juróom rek ci la tënku wattu worma li sëñ kii daa ku matta wormaal ak wormaal lu watta marmaal ak am itte ju kawe ak nangoo rafetal sa liggéey ci lu ñu lay liggéey loolu ne ak boo amee xéewal ngay sant yàlla ba ko juróomeel mooy nga am nag ak dogu juróom am am nga eh, jumtukaay teggin yi nga xam ne ci lañuy ñuy góobee bu doon sart mooy góob mooy góob tey teggin <laughs> sëñ bi nag tënk ko ci gàtt waaye nee tarixatul adabi rahmatu saxiir kal abi wal ummi wa taw xiirul kabir wa taw kabir wa jaxalu mislika kanaf si kasawa li wacci xaali xen xalal xas sistawa nee na yoonu teggin nag mooy yërëm gone def ko ni sa bopp wekk mag ku la féetig mag ku ne nga def sa kem ni nga def sa bopp loo bañ si bu xarit daana ko wax loo loo ku ne la la war ci moom dee ko def te bul seet la ko war ci yow ba xam mi ngi koy defam déet mm-hmm. yow yow boo defee leer rek wàcc nga sa diggante yàlla <laughs> bokk na ci seen xeet lim daa teggin muy lépp teggin nag sëñ bi waxaan na ko feneen ci masa al adaba al adaba summa al wa huwa an taburra umman wa aba wal hamma wal ammata kabir wa cheikha inna cheikha bil birri jadir wa kullu man sama alayka tukrimu wa kullu man saxura anka tarhamu nee na am na koo xam ne daa ñëw ni bëgg koo dénk mu ne ko al adabal adaba taqool ak teggeen su mal adaba taq topp nga takkoo teggeen rek mm-hmm. mu ne ko teggeen mooy lan mu ne waxu moom teggeen an taburra mooy bu ngay topp umman ndey wa aban ak baay nangoo topp seen ndigal wal xamma ak sa baay bu ndaw wal xammat ak sa bàjjan wal aqal kabir ak sa mag wa cheyqa ak sab sëriñ mm-hmm. inna seyqa nakab sëriñ kat jadiirun aji yeyoo la bilbiri ci topp wa kullu man sama alayka tak tukrimu képp koo xam ne moo la féeteeg mag de ko teral képp koo xam ne moo la féeteeg ndawet de ko yërëm loolu mooy sëñ Tuubaa nee mooy yoon teg ya bu ko defee nag ngeen xam ne sëñ sëñ sëñ Abdou Khadir daana wax ne dana dañu daa jàngal bu baax teggin danaa wax naan mag ñi de sëñ bi da leen yaroon ba nga xam ne teggin dañ koo xam fañ koy lu ne dañ ko am ci teggin ci wax ak ci jëf mm-hmm. bu leen sëñ bi ne ndax eh, ana diw nee na ñu jóg seeti ko la ñuy wax waaye kenn du wax nekku fi mm-hmm. bu ko soxlawut ne la eh, dama ko doon laaj rek suñu doxee rek ko daa waaye kenn du ko wax nekku fi lépp lu ma kenn du ko wax déedéet. Mm-hmm. Eh. mu ne moom de maam Cheikh Rafal yëpp da ko daa nett maam Cheikh Rafal am na boo xam ne sëñ bi da koy da koy te da ko doon natt rek ngir wan leen fas yéefam da ko dañoo defarum néeg mu ne xool leen xoolal ma Cheikh Rafal dugal xoolal ma satla gi xoolal ma satla satla foofu Cheikh Rafal di dugg di rek ma gise goos mu ne ko maa ngi koy bëgg a gis de allahu akbar ne dama leen doon wan rek mbiram ndax moom xam na ne sax ak satla ni fi waaye du ma wax déedéet <laughs> waaw maa koy bëgg a gis Eh. kon sëñ sëñ eh, noonu la noonu la noonu la teggin sëñ Abdou Khadre daan ko fàttali bu baax a baax yoonu murid nag sëñ Modou Lamine Gueye dafa waxoon ne ci teggin yi nee na romb ak roy la laaj ak roy ñaari raa lépp lu la doy eh, royal lépp loo xam ne dese na laa doy ca nañ la ko waxe rombal waaye bu ci bu ci na ci saw làmmiñ ne ceel <laughs> ñaar ra <laughs> waaw waaw dé kon nag nañ xam ne eh, sëñ Abdou Khadir daana ñu wax ne gis nga teggin fi mu toll yar eh, yar bokkut ci teggin yar gan ak yar mag yar <laughs> ñoo mën a jàngale waaw yoon loolu kon nag eh, yàlla na nu yàlla dimbale ba nga xam ne li Sëriñ Tuubaa bëgg danañ ci nekk te bañ cee jóg ngeen xam ne daal ngeen xam ne daal liggéeyal yàlla moom la Sëñ Abdu Xaadir nekkoon ci dundam bépp te lu muy def lu ne ci bi mu génnee rek la koy royee muy madrasa sëriñ bi sëriñ bi mooy lépp mooy jàngukaay bi nga xam ne lépp lu baax daje ci moom mm-hmm. mooy jàngukaay bi nga xam ne génne na ci madrasaam bi ku nit di yéem ku ne génne na ko ci ca fànn gan ndax tasawuf daa yaatu mm-hmm. fànn gu nit yéemoon ci nit njëkk ña mm-hmm. ba mel noona ba ba ba beru sëñ bi génne na ci école mbooloo mu mel noona waaw ah, kon sëñ Tuubaa mooy ki nga xam ne mooy jàng mooy jàngukaay bi nga xam ne yàlla dajaleel na ko lépp sëñ Abdou Khadir mii ku newoon ci jataayam nim diggi nim toppe sunna nim rafetale eh, eh, nim rafete jikku nim rafetale digganteem ay bokkam waaye fi ni fi teg sëriñ bi fi mu teg ak taalibeem ci sëriñ bi fi mu ak ak ak bëggam sëriñ bi nga xam ne lu ne dana daan dana la ci jàngal nga xam ne sax euh, bu ñu masaa ne ko masaa laaj nii ñu ne ku ma kër sëñ Tuubaa gi képp da wax ne ah, euh, xanaa ma ngi ci kër gu mag ngay wax waaw mm-hmm. ah, ma ngi ci kër gu mag ah, eh, yéen ñëpp kenn nangu na ci sa kër sëñ bañ moom nee na ki nekk <laughs> nii da ngeen wax ma ngi ci kër gu mag mm-hmm. waaye kër gi ndax loola moom ci njëriñ mi mag ñi bañ fa nee loolu lañ doon wax waaye kër seen yéen ñëpp kenn nangu na ci sa kër sëñ bi bañ ko moom yàlla ñu <laughs> <laughs> nag yàlla na yàlla dimbale ñu taasu ci barkeem loolee ma leen wax bés bi bu agsee yéen ñëpp da ngeen àndaale seeni bagaan dafa siine taataan ci li ko yàlla defal ci dara ji sëriñ Tuubaa ndax laa biiroon na ci te kooku mas a wut ci moom ku ne yàlla yàlla yàlla jox na la ko moom it ak ñaanam yàlla mayoon na ko mu doon koo xam ne euh, euh, ku amoon ñaan la waaw ba ñëpp xamoon ko ci moom aajo faju na ci ba tàyyi ci moom te ñooñu sax du leen xam waaw yàlla defe ne nag yàlla may na ko ñëpp sopp ko mm-hmm. jullit ñëpp sopp ko mm-hmm. taalibi yëpp sopp ko loolu nag mel na ne la sëñ Tuubaa def ci moom rek la bëgg ñëpp jariñ ci ndax Euh, ku ne xam ne cosaan la du jar ma ci jaaraat waaye loole mu yéene woon nit ñi rek moo tax mooy mu xar xoli nit ñi bëgg leen bëgg loo leen ko te ku ko bëgg rek daal ci mën a jariñu kon nag indi leen bagaan nii rek te yàlla def ba ku indi bagaan yàlla def mu mën a fees dell ndax Sidna Abdou Khadir Jeylaani mi ñu ko tuddee kat moom am na bis boo xam ne daa wax ne mi ngi téeréem bi téeréem xayaatu Seex Abdou Khadir boo ko liiree da ko ci fekk ba uh, daa bis boo xam ne daa wax ne yéen ñëpp na kenn ku ne indi indil ma bagaan Cheikh Abdou Khadre daal génne fi mu ne ku mu romb sa bagaan ñii seen bagage bagaan fekk wurus lépp daal soppi ko doon wurus xam moom xar baax gu ne da ko daa def ñii fees le dell wurus ñii diggale ñii todd ci li ñuy wax sàngataat mu ne kenn ku ne fas yéefam laa ko duyale Eh, yàlla kon nag yàlla nu yàlla defal suñ fa siif waaw nga xam ne ku ne ba ngay dellu wurus nga yor ci bagage yi te xamu woon lu waaw kon nag yàlla nu yàlla taas ci barkeem gën ñoo jariñ ci sañ Touba gën ñoo saxloo ci eh, ay gën ñoo saxloo ci aw yoonam gën ñoo saxloo ci ak taalibe gën ñoo saxloo ci am njàngaleem te te yi yim ñaan boroomam yàlla nàddil ñu ci bu baax a baax a baax lii mu sedd sëñ Abdou Khadir ku ci ñëw ku ci ne wala nga yéene woon a ñëw wala nga ne ci bi bitim réew ñu ngi la ciy ñaanalaaleel la ciy sa wàll fekk la fa ci daraje Serigne Touba daraje ki ñuy defal bis bi nga xam ne nag koo ci tuddaat rek lam amee ci sëñ bi la koy jëlee waat waaw akula amin wa antum bi xeyrin wasalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf euh, mbokki yi téléspectateurs yi jàkkaarloo ñun duñu seetaan jërëjëf itam mbokk yi nga xam ne ñoo ngi doon déglu ci rajo bi Eh, jaajëfal bu baax a baax Serigne Moustapha Mbacke moom Cheikh Abdoul Khadir Mbacke ci tomb bu am solo bi nga xam ne andi na ko te kenn naatablewut ne jamono laaj na fi mu toll temb boobu ndax lu ëpp ci jamono rek li ko waral moo di ñàkk eh, teggin te eh, ci njàngaleem seriñ Touba Cheikh Sidiane Mokhtar xam ngeen ne waxoon na ne ku amuti teggin doo teggi dara ku amutub yarit doo yor dara. kon boole ab yar ak ay teggin jamono ji fi ne laaj na ko ndax bu ñu yemee ci njàngaleem kese mi te yaruñu rek eh, lu yàqu ci àdduna moo ko yàq moo tax Sëriñ Tuubaa daan boole daaray jàng ji ak daaray tërbiye ji buñ la jàngalee ba nga xam say farata ñu dem tarbiya la ba nga mën a jaxasoo ak nit ñi kon nag ñi ngi sant bu baax a baax Cheikh Mamadou Moustapha di ko ñaanal yàlla sun borom gën a guddal aw fanam gën a dolli ak wéram te defal ko Serigne Cheikh Mbacke mu xalifa Cheikh Abdoul Khadir mi nga xam ne mooy jëwriñam ak mbooleem njabootu Cheikh Abdoul Khadir ak mbooleem njabootu Serigne Touba gépp seen mbokkum taalibe Fallou Galass Sylla àndoon ak yéen feggoo ak Serigne Mortala Fall Serigne Fallou Galass Sylla ci wàllu caméra bi eh, Serigne Falilou Xuma ak Serigne Abdoulahat mbay ñoo ñu ngi sant bu baax di leen ñaanal jàmm di ko ñaanal suñu bopp di ñaan yàlla yàlla ñu defal atum jàmm ak nawet bu barkeel wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.